السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبكي نيغي ñu دي نويو دي nuyu زياره تاي نك ني nag ديك سي وقتانك فيديو بي nga xamne yone nañ len ko léegi njumte gu rëy gu ci nek ndax amna bo xamne daw la don daw muy ben way bo xamne day wote mu melni nit ñi dañuy yek ci kaw mu ne ñëw lañu dem Touba ñëw lañu dem Touba ñëw lañu dem Touba barke borom Touba nga xamne ne yaa fowe lo xamul lu tal ne màggal gi boko xalaté xalat borom. xalaat coono ya mu dajoon la jiitu mu di ko am ak la taxoon muy liggéey ba am lii mu am boo ciy wax mën ngaa jël ci lu bokk ci moom ñu bokk ci ñoom am mbindam ak i waxam wax ci woote ci jëm ci màggal gi li mu bind du jeex te kenn du ko jeexal mukk waaye daaw noonu lañ ko defee ren jiit am ku ñëw def vidéo bii nga xam ni lu ko gën a ñaaw amul ndax koo xam ne ba muy woote muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimul Rasul turam wu màgg wi jëfam ju màgg ji mbiram mu màgg mii ak dëkkam bu màgg bii dongam yu màgg yii ku dem bay wax ci moom war ngaa jël nit ku ñuul ku baax ku am diine waaye koo xam ni moom Serigne Touba xamoo ku ko gën a bëgg lislaam ngay jël ci moom misaal am loo ciy woote jël koo xam ni xamoo ku ko gën a bañ lislaam loolu njuumte la luy ndeyi jël nit ku weex luy ndeyi jël kii nga xam ni bokk na ci nooni lislaam yi gën a màgg di ci woote lu mel ne màggalub Touba gi ñaaw na lool bu daaw baat ñaawon na waaye bu ren bee ko gën a ñaaw kon nit ñi ni xalaat lu ñuy mën a def nan ko jëmale ci mbindum sëñ bi bu ñuy wax ci sëñ bi nan tàmbalee ci sëñ bi yam ci sëñ bi li mu bind du jeex waa këram ñaa ngi fi waxi sëñ Abdou Lahad ngi fi waxi sëñ Fallou ngi fi waxi sëñ Modou Moustapha ngi fi waxi waa kër sëñ Touba yépp ngi fi te mën nan koo jël te duñu jël baati kenn ak di ko soppi jaru ko sëñ Abdou wax na li mu wax doy na bu nu bëggee woo nit ñi ci màggal gi nañ nañ leen woo ci baatub sëñ Abdou Lahad baa bu kenn ci waa kër sëñ Touba baa lenn ci mbiddum sëriñ Touba waaye fekk koo xam ni la muy woote ki ko doon woote xamu ko ko gën a bëgg lislaam waaye kii nga jël di ko di di woote ci aw làmmiñam akub image am xamu ko ko bañ gën a bañ lislaam loolu njumte la kon nanu moytu bu baax yi ñuy partagé yàgg nañ koy wax di wax ni lislaam day wax ni li ko tax a jóg muy ñi nga xam ne ñi ngi xalaat boroom xel yi borom xalaat yu jub yi borom xalaat yu baax yi looloo tax lislaam jóg waaye bokk ci mbir te doo ca xalaat di ca doxee nu mu la neexee yow it lu nu la jox nga partagé ko ndax am na ku ma ko partagé kilifa la xam naa lim ci jublu moom mooy man ma def ci waxtaan ngir yee ci nit ñi waaye partagé wu ma ko ngir bégloo ma ci kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax li ñuy wax nag naan ñàkk ko te xam ko moo gën am ko xamoo ko am na ñoo xam ni amuñu Sëriñ tubaa te xam nañu ko. waye amna ño xamné amna ñu Serigne Touba waye xamuñu ko ku xam Serigne Touba bokay wotel da nga xam yan kàddu nga koy wotel da nga xam yan image nga koy wotel da nga xam lan nga cey jëfëndiko assalamu alaykum wa rahmatullah